mbind mu sell mi nee na ci jëf ya saar juróom-ñett aaya ñaar fukk juróom-benn ba aaya ñaar fukk juróom-ñett saar juróom-ñett aaya fanweer ñeent ba aaya fanweer juróom-ñeent naka noonu benn malakam borom bi ne Filip jógal te jublu misra jaar ci yoon wi jóge Yerusalem jëm Gasa di manding Filip jog dem noonu mu gis fa nitu Éthiopie ku yoom di jaraaf ju mag ci kandas bur bu jigéen bu Éthiopie te di ko wattul xaalisam bépp fekk mu ñëwoon Yerusalem ngir màggal si yàlla ba dellu mu toog ci watiram di jàng téereb yonent yàlla Esayi jaraaf ja nag ne Philippe maa ngi lay laaj ci mbirum kan la yonent bi jëmale wax ji ndax mbirum boppam lay wax mbaa mu keneen noonu Philippe tàmbale ci aaya yooyu xamal ko xabaar bu baax bi ci mbirum yéesu bi ñu jaar ci yoon wi ñu agsi ci ndox jaraaf ja ne ko ndox ngi nii ana lu tere nga sóob ma ci mu santaane nag ñu taxawal watiir wa Philippe ak jaraaf ja wàcc ñoom ñaar ci biir ndox ma mu sóob ko ca ba noppi ñu génn ca ndox ma te ca saasa xelu borom bi fëkk Philippe ba jaraaf ja gisatu ko waaye mu toppaat yoonam ànd ak mbég